li ma la wax nii dina jafe lool pour nga xam ne sama nit la maa moom sax dal naan bokkoo kalsu dootuma amati ko mel ne ko lu ma waaye wax mu dépendre ba billaahi alu papam laa jàngee géej mu doon xale dugul sax si làmb li ya ya, ma lay ya, du tay yaayam xam man xamna papa papam xamna may bëre muy mag di doon xale doon sama supporter dima ma demal di ma bëccëgal ba tay brise bi duggu ko ba tay niveau bi mu ag ni que ñu bëri jàpp na ne yow ya ko def mbër xamna ne yow ya ko def mbër. non loolu la yàlla dogal maa def mbër noo bokk benn koñ buñ dëkk buñ juddoo am dëkk Mbour yaayam dekk jokul njaayeen amé sét nit ku bax dama ko yobbu sa sama kër ñu tok defar lek naan caleçon sa dan ko laan bopp ba bi may dem Gambie rek ñoo and bi may jëli sama gal. ñu ñëw bok nday bokk baay. kañ ngeen mujjee gisante. kérok bu muy dem bi sok bi amé kër ga la ñëw ma jox ko ay dàll sama joran mom la ko jox mënuma da am fu may dem dalay do ci si duma ci baat ki yonent bi duma ci tek bat mom moko mom wax mom donon na ko xamanteni sama man mënu mu la sax expliquer boy bobu no daf ma nax dem 8 combat la am sans défaite jambar la bi yorna fugu bo xamanteni billahi sama la ko jëlé barki yonent yalla muhammad bu kay yedd guddi di ko yedd beuje ku bax la ma kay jale wax àddina sax laa koy jaare ndax boobu ñëpp la neex yàlla ko yàlla yërëm xaaraka àjjana fir rek billaahi kenn ñàkkul ku dul man mais nitu nit ñi la wala koy jaare ay copainam ay xaritam ay am di jullit la xol muy jullit te ñëpp la yéene jàmm papa yaata soxorul ma suul sama ndey ak sama baay soxorul man xam naa loolu si moom bëggul ku néewal doole doomu aadama foo ko gis si àddina mu ngi kafaatu tànka yi di kaf di ree nekk ci jàmm boo gis boo booy néewal doom xale sax mu daw jël ko wala mu fekk ñaar ñuy nit ñuy xeex mu dem jël histoire bi ndax tellement que bëggul ku laal doomu aadama billaahi wallaahi talaay ku dee asa baamel sabaan moo ñu boole woon ak moom te xëy na yàlla jëlaat na ko ñu koy ñaanal yàlla xaaree ko jënd ak bàcc nañ waaw loolu lañ soxla dund vraiment ñu lay remercier ki xam ne moo di Sa Thiès. di wax ne bu euh, Rufisque en deuil xanaa Tëngéej moo perte Sénégal moo perte axlu làmb mooy ñàkk li mu ñàkk mooy dafa ñàkk un jeune talent Tëngéej moo ñàkk un jeune talent koo xamante ne tey mën naa ne ñàkk nañ koo xamante ne amuñu fuñ ko daboo ci. ndax xale la boo xamante ne ku am talent la ku am jom ku am fit ku bëgg yaayam te ci koo xamante ne ku respecté yaayam la boo Assane Diop li tax mu neex a nekkal mooy bu la fekkee nga ne si làmb koy fàtte waaw Papa Yade sax Papa Yade Papa xamante ne maanaam man li mu ko neex si moom mooy complice bi mu am ak yaayam boo ko fekkee seen kër ak yaayam da nga naan kii est-ce que kii du magam wala rakam tellement que seen amitié bëgg yaayam nit la koo xamante ne da lay fekk si ak biti sa nga am problème mu jur problème def ko problème dina ko xeex dina ko xuloo ba nga génn ci mu soog dem. bu weesoo loolu bi nga ñëw fekk nit ñi fii waaw entraînement bu mel ni moom wax dëgg na yàlla bu fekkee dëgg rek moo tax neex yàlla mosuma ko fekk mosuma ko assisté lu tax ma ne mosuma ko assisté fekk naa dëj bu bëri ni ba tey mais dëj bu mel ni ci ay jeunes ndax boo xoolee képp koo xam ne jeune bi li ko daggee ci ñi ma xam man asalam Grand Médine ba tubaab Jala ci ñi ma xam ñëpp gis naa leen fi ndax xam naa ay nit xam ne Assane Grand Médine lañ jógee ñu ngi fi xam naa ay nit yu tubaab bi lan nga koy ñaanal moom mi fi jógee euh, Assane li ma koy ñaanal mooy dama koy ñaanal mu yàlla sa borom ndax ku bëgg Serigne Touba rek taalibi maam Thierno Ibrahima borom daaru la maa koy ñaanal yàlla na dajeex leeru Serigne Touba ci darajay Seydina Muhammad kàddu yi ñu waroon si moom mooy bari na bi ñu sant yàlla di gis yeneen tamit di ñaanal suñu rakk ji a dund bu ñuy si moom bi jeex daal parce que suñu rakk la suñu nit la doy na waar daal billaay wallaay. bi ñu ko tàggee ban yëg-yëg hmm? nga am si moom. bi ñu ko tàggee lan si moom mooy xam nga rek suñu rakk la aussi tamit dañuy déggante chaque jour. aussi tamit tout le temps ñun ñooy nekk kon yàlla moo ñu ko mayoon. aussi lu ñu mel nii dañu mos a yàgg si dëj. Hmm? si dëj li ñu toll nii. ah non moom moo liggéey loolu moom moo liggéey loolu soo xoolee xam ne nit ku baax la aussi tamit. àddina bàyyi naa la àddina àddina